am na ku nga xam ni laata muy jot la mu yor bu la waxee fa mu jaar li ngay laaj mooy ndax yàlla ndeke soxare na noonu te fekk soxaru def dul maye yëfam ci kese kese waaw mag ñu baax ñëpp jaar nañu foofu maa ngi fàttaliku sëriñ Koso Mbàkke bi ma nekkee ci prison bi mu ñëw seet si ma ñi sant Mbàkke rek ñoo ma seet si ci prison bi ñi sant si kenn ñëwu fa bi mu ñëwee moom sëñ sëriñ Koso jooy na sax man ko sëriñ bi lan la loolu dama xam ne boo xamoon li sa maam sëriñ Tuubaa daj kon daf fi gën a muñ mu ni ma biñ ko jëlsee pour yóbbu ko Gabon fañ ko denc ca Ndar selul bañ ko dugal julli sax bu koy def ca ishaara la koy defee ndax bu nee nii boppam di laal fi bi bu nee nii teen boppam di laal cellule bi donc mënul sëgg mënul sujjóot waaw kon nag ku doon ñu mel noonu nekk ci prison du sa nekk sa problème waaw sëriñ Abdul Fattah Mbàkke ñëw jaar foofa waaw bi ko journaliste yi laajee lu tax nga ñëw seet si Moustapha mu ne kenn ku nekk ka nga am ci jamono yu xat-xat jëngal leen di xamee waaw ni moo tax ma ñëw fi waxtu wii pour moo xam ni du moom rek ñi baax ñépp ko bokk ak moom waaw ah tabaarakallaahu ñoom sëriñ Abdou bii kër ga ñoom ñëpp la góor gi mobilisé waaw dafa mujj di leen defloo sketch sax <laughs> nit ñuy ñëw ca prison ba di ma reeloo waaw ndax ni rek ma bañ a triste waaw ñuy ñëw ca prison ba ñoom Serigne Abdou ñi ñoom maam léeg-léeg ñu ñëw fa ndeysaan ñoom soxna Kiné ñoom soxna Um Kulsum ndeysaan ak rahmatullahi alayha soxna Asi waaw waaye fekk yëguma ko waaw ndax li góor gi daan wax ni sunu kër yëpp ay prison de luxe la loolooy tax yooyu doo ko yëg mu mel ni kon ah heure baa ngi dem dañ doon essayer pour barke lu tuuti rek xëy na ba suba bu suba ñu yeggale checkpoint bi waaye itam sëriñ Abdul Wadud mii Mouhamed Abdul Wadud maa ngi koy suivre jamono yii yépp li ñu ko génnee ci télé yi ci jamono yi moo ëpp mu wax ci wax yu am solo yu may retenir sama mbokk bopp bi Seydi Ahmadil Amin Mansour Sarr mu nga may nettali bi mu jógee kër jëmb te woo ko téléphone la mu wax ak moom yépp fa tabaarakallaahu mu mel ni daara ji la nag ñun ñoo bokk daara ji te lu ma wax yéen ñi bu leen neexee ngeen wax lu ni toll formation formation rek la la tudd waaw te yitte bi ñu yàlla dimbalee ñu am ko ngir yàlla ki ñu yar ni mu ñu conditionné noonu la leen conditionné moom Seyid Cheikh ma defe ni kon nag sant yàlla rekk lañuy def di ñaan yàlla itam mu may ñu at mu jot ñu di ko dundal ñépp di fekk te ñépp am wér xanaa ngeen ñaanaaleel ma wér gi waaye gëwuma mu yombati ne am na loo xam ne ku ko yenu ba noppi wér dina la jafeeti waaw yow tolloog mag ñi ak seen xikma rekk maa ngi dégg sëriñ Cheikh di ko nettali ni sëriñ Babacar bu masaan toog ci salle bi dafay mel ni dara jotu ko mu waaye bu nit ñi tàggoo ba dem nag ne mu ne cey mu du ngeen ma may foroote way ndax sama oom yii di sonal na ma waaw di jàmbat yu bare di jàmbat yu bare waaye bu nit ñi toggee nag mu mel ni dara xewul waaw loolu moom lañu jële ca mag ña donn ko ci ñoom te duñ ko ragal nag waaw bu ko defee ñuy sant yàlla am na ñu laaj sax ci suba waa ci accueil bi daa jaaxle ci sama comportement waaye fekk na dafa am lu ma xam te mënuma ko expliquer nit ñi waaw ma faf ko jaare noonu rek waaw waaye sant yàlla rekk na mhm. ndax itam atu yàlla gisuloo njaboot yi yaa ngi ci sa yitte ñoom ñu ngi ci seen yitte ba bisu tey bi daje kenn mànkewul liir yi nàmp sax ñu indi leen ñooñu boo leen xoolee ak seen enthousiasme ak seen yitteeg seen farlu nga yëg ni sa jëmm gi moo leen fi bàyyi wallaay bu sa rangooñ waddul nga xam ni kon war ngaa seet sa bopp waaw waaw dafa tolloog nag sunu borom du juum noonu la tërale àddunaam na ko góor gi waxoon fa taratan dara yusran wa taratan uxra tara usran kon nag fa inna maa al usri yusra waaw moo tax rek lu yàlla indi rek nga jël ndax li mu góor gi waxoon ni yàlla man xarit ndax lu mu diis la yan yan la ko waaw waaye l'essentiel mooy nga nekk xaritam waaw bu ko defee kon nag njaboot gi sant leen maa ngi ko wax ci suba taxawaayu maam capitaine ak ay freram ak i cousin ak ñi mu bokkal ci MG bi taxawaayu soxna Fatima ak yaayam ak ñi mu bokkal seen group yépp ah boo ci dee xalaat dangay sant yàlla lool ndax boo amul woon ñu mel noonu yow yaay summeeku